ci guddi euh, ñeenteel ga Sëriñ Sohaybu Mbàkke mi ngi ciy wax euh, ni ku ci julli ñeent ñeent rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha ak qul yaa ayyuhal kaafiruuna ñett yoon dees na ko bindal tiyaabay jaamuk junniy nit te dees na ko jéggal bàkkaaram yépp bala moo jóge fa ma ko doon defe julli googu itam gu gàtt la waaye gu mat bàyyi xel la muy guddi ñeenteel guddi ñeenteel gi ñu nekk nga xam ne képp koo xam ne def nga ko ci suñ borom dañ la bindal tiyaabay jàmm junni nit waaye jën la jege sa mboolem bàkkaar yi nga defoon yëpp ci ginnaaw ak li nga sa kanam bala ngaa jógee fa nga doon jullee kon nag mbokki julli gu mat a bàyyi xel la julli gu mat a topp la lu gàttal lu yomb la man nga ko def te du la yàqal sa benn benn benn itte te lu baax nag jarut jarut xeeb waaye jarut yéem nu mu toll rek baax na kon nag ñu gën koo bàyyi xel baax a baax te di ko topp suñu kémti laxe kattan kon loolu moo nekk guddi ñeenteel gi incha allahu rabbi ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel